ñu ngi fii ci ndogu pour tous ànd ko ak euh, honorable député Hélène Tine euh, mu nekk tamit euh, responsable politique dëkk fii ci Thiès tey Adama Ndiégène ci ndogu pour tous mu nekk président association bi descend rek quelques kaddu digganteem ak honorable député après ñu jublu ci liggéey Adama asalaamaaleykum. donc maa ngi gërëm yàlla di gërëm waa àdduna rawatina di gërëm waa Thiès mais fii nu ñëw tey man sama lépp fii la fii la fii la fii la doore woon. donc maag moom mu nekkoon maire bu engagé wu amoon lu mu bëgg te du ko fësal donc avant ñuy sos ADN 2005 2006 2007 ba 2012 réalisation yi def yu bari suñu nee njëgën a def nàngam ñu xam ni Hélène woo na ko jël alalam def ci biir bi ñuy dox ba mu nekk Dakar ci lañu yàlla xamale ku ñuy wax docteur Pape amadu Ndiaye kooku di ñu wax ni ñu xool ñu ba yàgg nii yow da ngaa dof li elen xool di la jàppale man duma ko def man damay financé lépp. njëgeen fii la dooree ci kër honorable député Hélène ay action ci touche yëpp parce que su may wax touche yëpp keroog bi ñu bi ma ñëwee ko honorable marché bi day takk mu ni ma léegi nag ma ne ko maa nga jëm ci chef d'agence Sénélec jour bi ma fi départ gouvernance laa dem bi ma demee dama fa gouverneur ni gouverneur du fekk su ma waree génn may leen gouverneur day yeewu par A par B parce que du ma santaan marché central Thiès lakk ñu boole maa ku ñuy wax Soumaré ñu génn chef d'agence Senelec boole maa ku ñuy wax loo jox ñu carburant ñu ñëw donc loolu liggéey naa ko ci Thiès waa gouvernance ak may dégg waa Senelec Thiès ak may dégg te moom Hélène Tine ci fenn am na ci saxaar yoo xam ne jaar na fi ay nit dagg ci. ma ñëw seet ko dem naa ci prison ba mu am fa ay mbir yu fa metti ci ay nit ñu war fa def ay taal euh, mbaar pour sauver kër yi nit ñi ma ñëw wax ko te musul taxaw assemblée ni man Hélène Tine nangam dafa baax su amee bis bu ne ni ma ànd docteur Pape Amadou Ndiaye ñu def ko pour tous ba tey ci cëppaandaw gi moom mu ni man kat ci dëkk bi laa dëkk lu waay def dama koy def mënumaa dabe 29 jours waaye man na maa fexe korite gi neex ah démb bi mu wooye ma ni ko nag man it mënu ko bañ a fësal nit ñi gis nañ saaku soble yu tekki ak saaku pomme de xamuñu fu mu jógee dafa baax nag ma wane Thiès waaye ni kat ni ñu ko àndee woon honorable bii moo teg lii ci taabal ndax mosul bëgg ku ko wax donc looloo sabab tey ma ñëw présenter leen koo xam ne kii doomi cees la mais nag cees la yor ci kër ci xolam. fi ne bu génnoon léegi fi ñu génn léegi nii ñu dégg benn accident nangam nangam dañuy maye deret nangam nangam mu woo ma ni ma kaay borom dëkk bi nañ def nii nañ def laa kooku mooy Hélène Tine tagguma ko duma may ñaar téeméer du ma may jas ne du ma may mbubb mais dama ne dëkk bi ku fi def lu baax am naa sañ-sañu wax ko ku baax ci dëkk bi la. di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu particulièrement waa cees di leen ndokkale si weeru koor wi ak ci korité bi ñu jëm ëllëg. di ñaan yàlla barkeel koor yépp yàlla nangu ñaan yépp indi ay xéwal yu bare bi Sénégal maa ngi ziar kilifa yi particulièrement di vraiment jëfal njégéen parce que moom njégéen moom la ñu war a wax moom mu ñuy wax ñun waaye ñun moom lañu war a wax wax na ko suñu diggante du tey yàgg na euh, wax nañ fi benn anecdote bu am solo sànq sama digganteek moom mooy ñuy campagne ba deux heures du matin ma taseeg njegéen mu may campagne man pour ma falu député te xam te te te tasewuñu te tooguñu kon loolu mu nekk cofeel bu sax suñu diggante bu yàgg euh, ma koy sargal ci taxawaayam ci wetu néew du doole yi du prison ba du hôpital du INEFJA du ñëpp ñi nga xam ne situation boo xam ne rek nit ñi soxla nañ ku leen taxawu ak ku leen Euh, jàppale njegéen am na ci initiative ba jiitu donc ki am initiative bi moom la ñuy sargal ndax moom nee nañ ku yëngu la yëngal moo ëpp doole te moom nag mooy yëngal nit ñi mooy fekk situation yu metti Thiès wala situation yu ñu war a taxawee Thiès muy ca prison ba muy ca hôpital ba wala muy feneen wala feneen mu ñëw euh, yëkkati nit ñi kon moom moom moom jaajëfal bi moom moom moom yi moom la ñuy ñaanal yàlla may ko wér ak jàmm. dogu pour tous bii mu def man daf ma cee sax mën naa ne man euh, daf ma cee dugalaale rek mais lam ku toog pendant tout le mois du Ramadan ngay jox ndogu ñi gën a néew doole Cees ak ñi nga xam ne nit ñi xëy na duñ leen bàyyi xel ci weeru koor bi mooy ña ñu tëj mënuñu dem. Euh, ak ñi tëdd feebar ak ñeneen ak ñeneen boo toogee kay ba desul dara korite gi mën naa wax ne man damay barkeelu si rek ci li nga xam ne moom la def ànd ko nag ak yeneen doomu Cees comme docteur Ndiaye ma koy sargal moom itamit dafay yàgg toog ci wetu doomu Cees yi loolu muy sama càmmiñ di sama xarit politique kese boolewuñu kon bu ma toogee fii tamit mu jàpp ci initiative boobu def ci lim ci def moom tamit maa ngi koy gën a sargal di ko gërëm ci turu doomu Thiès ci waa Thiès yëpp. parce que man mënoon naa wax ne lépp ñun la war ndax ñun waa Thiès ñun ñooñu du ñoom kese waa Sénégal ñoo ñu takkal ndombo tànk ñu nekk seen représentant à l' assemblée nationale kon nag lu la waroon nit ñi di ko def. suñ la ci woowee pour nga dugal ci sa loxo wala nga jàpp ci mënoo lu dul sargal ñooñu di sargal ñépp ñi jàpp ci ndogu pour tous bi ñuy ñaan yàlla déwén ndogu pour tous bi law ba nekk une initiative boo xam ne dina génn cees wër Sénégal yépp te nag mu nekk marque déposée boo xam ne njëgeen moo ko yëkkate mu jóge cees ndax cees nag dañ ko xam ci lu bëri loo xam ne Sénégal initiative yu rafet la Thiès la ñuy jógee ko te am nañ yéene njogu pour tous bi wër ba Sénégal yépp euh, euh, gis ci seen bopp. Euh, voilà honorable loolu nekk na lu am solo parce que tey bu ñuy wax Thiès dañuy ne rek tënk nga wax ji dañ naan mooy député bi falu amaa mu nekk député donc honorable loo xam ne il faut ñu wax ko tey bu ñu xoolee à quelques jour mun nañ sax ci benn fan ñu dugg korité mmh. gis nañu ñu bëri ñoo xamante ne tey réaction bi nga def c'est une réaction positive bëri na doomu Thiès yoo xam ne ñu ngi fii waaye gis nañ ni askan wi ñor leen seen bopp leen ñor. ah waaye xam nga euh, man wax dëgg yàlla wax naa sànq ne euh, ñun mënuñu fay waa Thiès man de mënuma leen fay mënuma fayit waa Sénégal parce que ni ñu liñ liñ ma ji man mënuma leen ko fay liñ ma lebal mënuma leen ko fay nga toog ci 15 millions de Sénégalais ngeen samp liste indépendante pour wuti poste député ñu falal leen list bés du ñàkk maa ngi ziar sëñ Mansour ak waa bés du ñàkk yépp ci korité bi ñu falal leen ñeenti député ñun ñoo war a honorer mandat de député boobu nga xam ne waa Sénégal jox nañu ko man moo tax depuis 2012 ba léegi fu ma dégg bëtu askan wi xonq danaa ca jéem jéem ci du joxe rekk ndax ñun amuñu lépp indemnité parlementaire la ñu am te ñëpp xam nañ ne lu lu lu lu lu mënut a dékk lu bari la waaye jéem ci surtout ci dox dem ci kilifa yi jéem ci ci wax kilifa yi dégg ko saafara ko muy Transrail muy muy Dangote muy AIBD bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari dañ ciy dox duñ ci wax lu bari nag barki démb Tiwaawan maa ngi ciy profito di saluer suñu papa sëñ abdu Aziz Sy Al di koy ñaanal yàlla may ko wér gudd fan moom ak kilifa diine yépp ak xalif général des murit gis nañu seen taxawaay ci crise u enseignement bi personnellement su ma tuddee sëñ abdu mooy sëñ abdu dañoo ko seeti man ak Abdou Aziz Diop fekk Sénégal yépp jaaxle ñu naral diggante nguur gi ak enseignants yi metti ba ñuy wax waxu rajo 5000 enseignants ba ñu demee def ñoo jox une leçon d'humilité parce que dafa nangu ñun ñii nga xam ne mën naa ne tekkiwuñu dara ci réew mi lu dul ay ñu askan wi sas mu nangu ñoo recevoir ak ñiy représenté syndicat yi fii ak IA Thiès mu na laaj ne na ministre ba ñëw ndax dayoo ma moo ni day moom mun nangu ñoo recevoir donc won nañu humilité won nañu sages ca wax jam ñu wax won nañu écoute ndax def ñoo recevoir de 13 ak à 16 heures ba mu yëkkatee kàddoom wax Sénégal yépp nangul ko fala ay wa faye kon ñun bu ñu demee dox loolu loolu ma koy seddal fii tey di ko wax Sénégal yépp ni ku am kuddu waruta a lakk ñun Sénégal nag dañoo may kilifa yoo xam ne waruñoo jaaxle ba dara di yàqu ci réew mi donc ñun lépp lu ñu def en tant que député mënuñu xeeb nañu ko parce que askan wee ñu njëkk a cërale ñeneen ñi nag xëj na dañoo yëgut xëj na bu ñu yëgoon xëj na déwén njegéen ñu gën a organiser wu doomu Cees yépp mën cee jàpp ba mu nekk une initiative boo xam ne ñi gën a néew doole ci cees ci suñu askan danañu mën a woor ak vraiment am ndog yoo xam ne yu yu yu mucc ay pendant tout ramadan